Música mbokk internet yi ñu leen di nuyu di leen dalal di leen remercier comme à chaque fois ci topp bi ngeen ñuy topp dañuy ñëwaat ak yéen ci seen revue de presse di li gën a ci xibaar yi fi jot a xew li ci ëpp nag nekk feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus dañ leen indil bépp xibaar boo xam ne am na ci daal di ciy toftal yeneen information yi nga xam ne am na fi ginnaaw jàngoro jooju ñu daal di koy dooree ak point coronavirus xam ngeen ne bis bu nekk dinañ leen ko jëleel fële nga xam ne moom mooy makaanu joriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram tey nag daal dinañ annoncé sur 6182 tests yi ñuy def cas yu positif 104 personnes yoo xam ne ñëw nañ dooleeku ci lim bi nga xam ne amoon nañ coronavirus ci biir 104 cas yooyu 100 di ay cas contact maanaam dañoo jëflanteeg ñu am coronavirus ñu topp leen ba xam ne ñoom aussi dañ koo am ak 4 yi nag ñi ngi ko répartiree nii xam ne moom mooy Pikine benn benn benn Vélingara ak benn Sédhiou ñi ngi annoncé aussi 23 personnes yoo xam ne wér nañ te dinañ dellu fële nga xam ne moom mooy seen njaboot 6 cas grave maanaam 6 personnes yoo xam ne fi mu nekk maladie bi daf leen daal di loolu moo nekkoon point bi nga xam ne moom mooy point corona ñu leen ko jëlal bis bu nekk fële nga nga xam ne moom mooy covid 19 ki daal génn àdduna di benn patient bu góor amoon li nga xam ne moom mooy 37 ans nag nekk douzième personne boo xam ne daal dina génn àdduna ci coronavirus bi nga xam ne moom mooy Sénégal waaye li nga xam ne moom mooy particularité bi mooy depuis bi feebar bi commencé ba léegi ñëpp ñi ci génn àdduna dañoo gis ni ay mag lañ maanaam dañoo am plus de cinquante ans waaye ki nga xam ne mujj naa génn àdduna ci li nga xam ne moom mooy coronavirus jeune la parce que amagul sax quarante ans mi ngi toll si trente sept ans fan yëpp yéen a ngi dégg rumeur bi nga xam ne mi ngi circulé ci dëkk bi di génn àdduna ki nga xam ne moom mooy Habib la woon ñëpp di ko partage ci réseaux sociaux yi moom ci boppam di ndayu mooy Sané nekk aussi acteur fi nga xam ne moom mooy Sénégal ni moom moo daal di répandre rumeur boobu loolu ba tax ba Sané daal di moom génn génn aussi daal di def démonté ci ay jooy yu metti la doon jooy di wax ni moom loolu daf ko bett ki nga xam ne moom mooy Habib Diop papam la waaye daf ko daal di tooñ parce que moom loolu takkeewu ci dara loolu nag day kàddu yu tukkee ci ki nga xam ne moom mooy Sanex ginnaaw bi ñu ko tuumaale ni moom moo daal di wax ne ki nga xam ne moom mooy Habib Diop dafa génn àdduna vidéo buy circulé ci internet bi ñu bëri di ko nakkarlu di mariage yu ki nga xam ni moom mooy Bara Gaye di homme d'affaires fi nga xam ni moom mooy Sénégal ak xale bu jigéen bii di Zeyna Diène di rakk ci Adja nit ñi ñu li nga xam ne moom mooy mariage bi waaye nga xam ne moom moo leen metti mooy dajaloo bi nga xam ne defoon nañ ko ci mariage boobu le mariage boobu nag nit ñi dañ faa dajaloo woon bu baax a baax a baax te respecté wuñu woon benn yoon li nga xam ne moom mooy distanciation sociale bi loolu tax ba ñëpp di ko waxtaanee fi nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi ñuy nakkarlu bu baax loolu nit ñi sax dañ doon wax ni justice war a jug ci loolu moo tax ñi la nga xam ne ñooy waa section recherche daal di woo ki nga xam ne moom mooy Bara Gaye doon marié ki nga xam ne moom mooy ñaaxarañ loo gisoon nañ ko ci vidéo bi Alassane Mbaye ak ki nga xam ne moom mooy section recherche ngir déglu leen mettre leen en garde à parce que ñoom jàpp nañ ni dañoo daal di enfreindre li nga xam ne moom mooy loi bi ak couvre-feu bi nga xam ne teg nañ ko ci état d'urgence bi nga xam ne fan ñi ngi ko passé fi nga xam ne moom mooy Sénégal fële ca ci ko loolu ba benn policier doon interpellé benn waay Géejawaay benn agresseur moo tax mu doon défendre boppam daal di koy jam fi nga xam ne moom mooy avant bras nga xam ne moom mooy hôpital ñu daal di ñaw nga xam ne moom mooy loxo bi ki daal di def jëf jooju nag daal dinañ koy koy TFM ak ñi li nga xam ne ñoom ñooy waa 2STV li ko sababoon nag di émission bi nga xam ne moom mooy célébrité et religion ba police sax daal di si am yoon ndax ki nga xam ne moom mooy El Hadj dafa daal di porter plainte ki nga xam ne moom mooy Yaa Awa directeur des programmes bu TFM di Bouba Ndour ak ki nga xam ne moom mooy wax ni moom moo jël émission institution boobu di célébrité et religion daal di koy legee ki nga xam ne moom mooy yaa awa waaye yaa awa jéy nag daal di ne prise ci benn post boo xam ne def na ko ci compte facebook am defaat ko aussi instagram mi ngi wax ñi nga xam ne ñoom ñooy ay fanam daal dinay arrêté émission boobu nga xam ne moom mooy célébrité et religion temporairement loolu nag li ko waral moom mooy ay saaga yoo xam ne ak ay yoo xam ne ñi ngi ko koy def ci réseaux sociaux yi te loolu nekkul loo xam ne gënal na ko moo tax mu ne moom dafay daw li nga xam ne moom mooy coow li arrêté gum pour bi nga xam ne moom mooy célébrité et religion lu doy waar moom moo fa daal di xew ci quartier bi nga xam ne moom lañ naan jannatu maxwa benn waaye lañ fa daal di daal di def nag du kenn ku dul soxnaam soxnaam si nga xam ne moom la nekkaloon moom moo daal di jël ndox daal di koy baxal ba mu bax daal di ko koy sottee ko ko ci kanamu ki nga moom mooy seen doom bu jigéen am 3 ans ci xale ci kanamu xale bu ndaw la daal di jël ndox mi daal di koy sotti ki nga xam ne moom mooy borom këram waa koñ bi nag dañoo ñëw ñëwoon nañ xale bu góor bi waaye fekk nañ yaram bi lakk ba metti daal di nañ ko yóbbu fa li nga xam ne moom mooy hôpital ngir ñu defal ko li nga xam ne moom mooy ay soins li ma metti point com na dina leen toppal histoire boobu ngir xam lan moo poussé xale bu jigéen boobu mu daal di jël ndox daal di koy sotti ki nga xam ne moom mooy jot a xew gis ngeen ci information yi coronavirus bi nga xam ne moom mooy Sénégal daal dinañ ciy toftal yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi ginnaaw jàngoro jooju comme toujours continue leen di topp directive yi nga xam ne moom na leen personnel de santé ndax feebar la buy lore li ma metti point com continuer leen di ko topp parce que fii la information bi di amee cloche notification bés leen ko moo leen di mën a permettre ngeen mën a am xibaar yi foo leen mënti toll ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ci biir li metti point com ak yeneen i actualité